sëñ Abdou yaay maa ngi sakku ñaan Mbàkke yaame mbay ay da wax ko li kan yaame sëñ Abdou Bari maa ngi sakku ñaan Mbàkke yaame mbay ay da wax ko li kan yaame sëñ Abdou Bari yëngal nga Tuuba Mbàkke yaame mbay ay da wax ko li kan sëñ Abdou Bari yeey makki salaol wangoy yaame mbay ay da wax ko li kan gaynde Fatma Sabaay makki salaol wangoy boy yame bay ay da wax ko li game in bay yame sëñ Abdou Bali Mbacké sala game in bay yame sëñ Abdou sara ma ci game in bay Mbacké bala ay sa Mbacké sala na sengore yame bay ay da wax ko game in bay yaame sëñ Abdou Ba kii Malick na Senghor yaame mbay ay da wax koli nga mesin mbay ala lay boobey borom ya jubaax banga yaame mbay ay da wax koli nga mesin mbay yaame ala boobey borom ya jubaax bangi yaame mbay ay da wax koli nga mesin mbay yaame ew lay boob ya amba jet si wono boob yaame mbay ay da wax koli nga mesin mbay sëriñ Mbakke ne na la dem ma jël ya ay da yaande Dramé Mbaye ay da ko li gëm in Mbaye yaa me sëñ Abdu yaay maa ngi sakku ñaan Mbàkke yaa me mbay ay da wax ko li kan hinda yaa me sëñ Abdu wali maa ngi sakku ñaan Mbàkke yaa me mbay ay da wax ko li kan hinda yaa me sëñ Abdu wali yendal ka tuuba Mbàkke yaa me mbay ay da wax ko li kan hinda sëñ Abdu wali yeey makki salawol wangoy yaa me mbay ay da wax ko li kan hinda gaynde Fatma sabaay makki salawol mool waangoy yame mbay ay te wax ko li kame in bay yame sëñ Abdou ay te wax ko li kame in bay iye sëñ bay ay sa wax ko li kame in bay yaame xayem jinga kimale na Senghor yaame mbay ay da wax ko ligame in bay yaame sey Abdou kimale na mbay ay da wax ko ligame in bay ay da wax ko ligame in bay yaame ala bobe borom ya jubaax bangi yaame mbay ay da wax ko ligame in bay yame Ablaay ma jël si wono ba Sëriñ Mbakke ne demal jël yi ay da yaande ba Sëriñ wax na demal jël yi ay yaa me sëñ Abdu yaay maa ngi sakku ñaan Mbàkke yaa me mbay ay da wax ko li kan himba yaa me sëñ Abdu Bari maa ngi sakku ñaan Mbàkke yaa me mbay ay da wax ko li kan himba yaa me sëñ Abdu Bari yendal ka tuuba Mbàkke yaa me mbay ay da wax ko li kan himba Sëñ Abdu Baali yeey Macky Sall waangoy yami may ay da wax ko li gam hin bayo day be baat ma sabay Macky Sall waangoy yami may ay da wax ko li gam hin bayo yami Sëñ Abdu Baali Macky Sall waangoy yami may ay da wax ko li gam hin bayo yami eh, Sëñ Abdu Baali Macky Sall waangoy mbay Mbàkke sala ol wangoy yame mbay ay da wax ko li nga miin mbay yene yab do sara ma tim ñaan mbay gis na lépp gis nañ lépp daal neex na torop. waaw tey nan nga gisee mobilisation bi nga xam na si ni si Abdou Bal def na ko. ah neex na nga laa torop tax a kii na daal neex na daal. ok merci. Serigne Mbacké ne na la demal jëli Aïda Yandé yame mbay Aïda wax ko li nga mën mbay Serigne Mbacké wax na la demal jëli Aïda Yandé yame mbay Aïda wax ko li nga mën mbay le wa ko joro ma do wa no sere le wa ko joro ma do wa no sere le wa ko joro yaa me sëñ Abdu Yaay maa ngi sakku ñaan Mbàkke. yaa me mbay ay da wax ko li kan Mbàkke. yaa me sëñ Abdu Bari maa ngi sakku ñaan Mbàkke. yaa me mbay ay da wax ko li kan Mbàkke. yaa me sëñ Abdu Bari yendal ka Tuuba Mbàkke. yaa me mbay ay da wax ko li kan Mbàkke. sëñ Abdu Bari yeey makki salaol wangoy. yaa me mbay ay da wax ko li kan Mbàkke. dañ ne baat ma sabaay makki salaol mool waangoy yame mbay ay da wakkoli kame hin mbay yame sey abdu bali makki sala mool waangoy yame mbay ay da wakkoli kame hin mbay iye sey abdu hoy sara macim ñaan makke yame mbay ay da wakkoli kame hin mbay makke bala ay sa makki sala mool waangoy yame mbay ay da wakkoli kame hin mbay yaame xayem gin ga kimale na sengoor yaame mbay ay da wax ko digam in bay yaame sey aduba kimale na ay da wax ko digam in bay ala lay bobe borom ya jubaax banga yaame mbay ay da borom ya jubaax bangi